nga gis nga um, Baye Faye dafa am benn am slogan bu ñuy wax dañuy naan. Mhm. wax wax ju baax baax na. Mhm. wax waxi ku baax baax na. Mhm. waaye jëf lu baaxul. dëgg la. mais waxu wax ju baax waxee waxi ku baax duñ ci jàpp kenn. dëgg la waaye boo jëfee jëf ju baax nag ñu jàpp la. dëgg la dëgg moom c'est vrai. comprendre mhm. léegi nag foofu ci jamono yi nag jëf lañ tollu nag quoi mhm. vraiment dañoo bëgg ñi ñuy jiite. Mhm. ñu jëfal ñu ñun askan wi. ngir lan ñu mën a yëg suñu bopp. ci jàppoon ne commencé def nii awuñ ci tànk yooyu. bon xam nga tamit dafa am benn mbir bu nga xamante ni dafa am. wax yomb na. mais tàmbali tamit yomb na mais àggali dafa jafe. àggali tax moo tax mën ne la état bi <laughs> tànk tànk mbaggax mbagg la. tànk tànk mbaggax mbagg la. weesuwuñu weesu nañ foo xamante ni dañuy jiital ay nit gëmm wala toog suñu kër yi di naan ataaya chaque jour dañuy suivre laction action du gouvernement chaque jour dañ koy suivre waxuma la ay wax de hmm. action Mm. du gouvernement dañ koy suivre dañ koy contrôler. d' accord d' ci ci ci licence de pêche yi nga xam ne pêche yi nga xam ne doon ko joxe récemment. Mm-hmm. nañ ci publier presque des euh, des dizaines de navires yoo xam ni ñu ngi doon euh, napp ci géej gi am na ci yoo xam ne illégalement lañ ci doon lañ ci doon nappee. Mm-hmm. Euh, tey naka ngay naka ngay jàngatee le fait que ñu annoncé plusieurs bateaux yoo xam dañuy ñëw te amuñu benn contrat. bu légal boo xam ne dañ ko doon nappee ba tey jii gis nga bi ñu arrêté ñi nga xam ñoo napp gis nga mool yi ñu ngi commencé di réjouir di am ndawal di am lépp naka ngay jàngatee loolu ndawal fan la <laughs> nag ndawal ak teel nag yéewi nag léegi naa ñu ngi jug. ñu ngi jug hmm. jëli ci tefes. waaw waaw ah, ah, waaye bàyyi de. waaye gis la visiblement man lu ma gis la man lu ma gis la lu ma lu ma lu ma gis la lu ma gis la ay nabi chinois yi nga ñoo fi nekk. taamu xel na waaw ay ay tey suba nga ànd ak. Hmm. ñu ngi ay ay prête noonu la kon jën wàññeeku la jën wàññeeku. ah, ah waay laaj ñu waay. waxal rek waxal rek waxal rek. non jën moom par saison la rek. Hmm. mais am na wala amul tàngaay bi am na wala amul. mooy yow yow attends. non damay laajte rek lu ñu wane lu ñu wane lu ñu wane bon li li li am solo mooy li am solo mooy <laughs> euh, géej gi. Mm-hmm. xamal nga man laa mënul comprendre. lan ville bu nekk ci tefes di pauvre. dëgg la moo bëri Sénégal. amul vraiment. Mm. Euh, ville bu nekkee ci tefes. Mm. économie maritime. Mm-hmm. dafa am doole. Mm-hmm. non simplement que mën nga développer pêche bi. Mm-hmm. mën nga développer aussi tourisme bi. Mm-hmm. mën nga développer aussi restauration. Mm-hmm. parce que booru géej féexlukaay la. mais boo ñëwee tey jii ci boo jëlee suñu côte yëpp boo xoolee tubaab yeeg naar yi jënd nañ ko. yenn plage yi ñu ko. yenn mooy loolu quoi. est-ce que yaa ngi dégg wax bi et puis euh euh, euh, euh, source d'emploi la. parce que tey jii moi dama lay kii mën naa la indi xam nga Saint-Louis yëpp amuñu ay chambre froid waaye mhm. amuñu ay chambre froide yoo xamante ni jën bi bu baree. Mhm. xamuñu nuñ koy def ñu stocké ko fa. waaw ah, problème boobu ñun sax am nañ ko fii ah, parce que des fois da ngay gis jën bi bëri gars yi dañ koy sànniwaat foofu de kii ko ci géej gi fekk dee nañ mu indi pollution et tout. non des fois je me dis que mais les communes les maires lan mooy seen liggéey. très bonne question quand même. comprendre nga. Mhm. source d'emploi bi amul benn doomu lébu wala benn doom boo nem pêcheur. bu war a jënd di def immigration clandestine parce que li nga mën a am ci jën bi noo ko am Europe par jour li nga mën a am ci géej gi par jour mënoo koo am Europe parce que Europe kenn amatu fa cinquante euros par jour kuy liggéey liggéey bu jaar yoon nag laa wax mhm. <laughs> cinquante euros xam nga c'est combien cinq cent kenn mënatu ko am Europe kuy liggéey liggéey bu normal kuy liggéey liggéey bu ko am Europe parce que 1500 euros la par mois te 1500 euros par mois immigré pour mu am ko foo mu def heure supplémentaire mhm. te dépendre na ci ban dëkk nga nekk donc man ay nit jaar nañ ci géej gi jaar ci désert bi jaar ci géej gi fekk ma Europe mm-hmm. dugg fa comme clandestin mm-hmm. ma bokk ci ñi leen ak accueillir defal leen formation int intégré leen mm-hmm. tu mais di ma lay wax ni euh, euh, euh, l'économie maritime mais boo jaayee géej gi boo joxee licence maa ko man maa ngi dëkkoon Ngor ci Pointe ba mais guddi bu jotee les bateaux étrangers dañuy mel ni ay immeuble ci biir géej mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. balaa lébu yi di yeewu fajar gi naan ñu ngi yor seen gaal yi di yeewee fekk ñoom pare nañ ba dem duñ gis dara te zone boobu c'est c'est poissonneux parce que zone de roche la maanaam coof beeg foofu la ñuy rëbb dooraat beeg yooyu zone zone de roche la mais façon napp bi nga xamante ni moom la bateau européen yi am ñun ko amuñu ko comprendre nga. maanaam te liy wane ni tubaab li nga njàngum tubaab. Mhm. il faut ñu xam ni dans ce monde on est dans une forme de guerre économique. Mhm. Euh, tubaab jàngam xam nga lan la. koo mën a nax nax ko. Mhm. fexeel ba bu la kenn nax te nax bu mu yëg ni nax ko. loolu mooy njàngum tubaab. yow da ngay ñëw ñu ne indil accord de pêche ñëw tool seen kii ñoom ñu ñëw kër si kër kii xam nga nga signé leen ci ay accord nga yaakaar ni lu ñu wax dëgg la lu ñu la mm-hmm. tegal nga signé ko. Mm-hmm. fekk dóor nañ la bu yàgg. waay ku ñu mënta nax du ñu ànd ak yow. doy na quand même. mënuñu toog ci ay trône d'or xiif du ñu rey quand même. déedéet <laughs> d' accord. il faut qu'on s'en quoi. Mm-hmm. léegi nag bon nouvelle état bi. Euh, je ne pas parce que le problème aussi du dàq bateau étranger yi mais mm. est-ce que am nga capacité garder sa géej waay protéger sa géej ak ñoom fu ñuy yam mm. lan la ñuy napp lan la ñuy napp mm. est-ce que am nga capacité controler sax ñoom li ñuy wax ne loolu la ñuy napp est-ce que fa la ñuy yam ah est-ce que gardien côte maritime bi am nañ ay matériels yu leen war a woon. Mm-hmm. yu war a mën a protéger géej gi. Mm-hmm. yow batalo Joola fii la fii la chaviré euh, une du matin ba six du matin waa ki maritime di ko doog a yëg. waaw dëgg la jamono Ablaye Wade. Hmm? ci jamono Macky Sall fii côté kii nu mu tuddati euh, Île des Serpents. amul ba gaal bu fa chaviré. Mm-hmm. ay nit dafa dee te matul da ngay fay dem. Mm-hmm. léegi il fallait que benn doomu ministre bokk ci wala ñaar mm-hmm. ñu créer alerte Sénégal yi ñëw fu ñu tànqal Dakar mais c'est extraordinaire <laughs> lan moo tax mënuñu garde côte bi ba gaal yi boo yi di yab gaal di ci def ay deux cent trois cent personnes ñuy dem te suñu marit mi amuñu amuñu capacité gis leen ñooñu mën nañ garde géej. non bu nekkee gaal yaa ngi dem moom kon euh, yaa un man je me suis toujours posé la question y a un problème parce que gaal bu yëpp ay nit bon ah. soit peut-être jaar fu kii du nekk man loolu moom franchement dëgg rek man nañ les matériels qu'il faut ay drone non garde corps soxlawul loolu garde corps soxlawul non mais soxla na ko soxla na ko am na boo xam ne fa dem mais drone mën na la fa demal surveiller la sa ay mais yow ki war a départ code bu ne normalement war nañ fa am garde code yoo xam ne ñu ko mën a liggéey di xool d'accord si soyons. mais yéen waroon ngeen def ay jéego parce que léegi euh, jógeetuñu fii sax ñu ngi jógee. kii Gendar yéen si tu mën nañ ko invité la woo xamante ni Gendar la dëkk. il connaît tous les points de départ. Mhm. ci tefes yi fu yi di jaar. Mhm. ak naka la ñuy organiser woo. voilà pour dem. Mhm. pour pour pour génn bu ñu bëggoon am solution nee na dinañ ko am ko. tu vois mais il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions beaucoup de questions yoo xamante ni. Mm. bon du ñu xëy xëy xëy rek bon bon on apprécie bien on les félicite. ci réforme bi ñu def. Mm. parce que tamit bëri woon na ay sénégalais yoo xamante ni ñoom ñuy jaay seen licence. Mm-hmm. multinationale yi mm-hmm. mm-hmm. bëri na ci bëri na ci. Mm. donc même ci biir Sénégal am na ci ñoo xamante seen comportement est nuisible pour le Sénégal. am yoo xam dañuy loué seen seen licence mm. ba ci ba ci carrière yooyu yëpp dañuy loué seen licence yi est que yaa ngi dégg mm. c'est le moment qu'il faut être vraiment des patriotes mais est-ce que la personne n'a pas le droit de louer sa sa licence bon loolu état moom moo koy état bu fekkee ni yow dañu am multinationales yi mm. parce que pêche pêche internationale yi ñoom méthode bi ñuy nappee méthode boobu c'est tellement baaxul ci géej ah, baaxul ci géej quoi baaxul si géej. Mhm. donc bu fekkee ni méthode boobu la ñuy nappee. Euh, yow même bu fekkee géej gi du noppalu daal. géej gi du noppalu et puis dañuy. napp ba napp ba ba napp nen yi. Mhm. <laughs> am temps de fu seen fu waaw fu seen fu seen mbaal mi jaar. ba ah, fa bàyyi dara mhm. donc loolu la quoi donc je ne pense pas que yow bu ñu la joxee licence. war boo ko mën a louer national ak louer ko koo xamante ni national la xam nga bokkul. donc euh, je pense que. c'est le moment vraiment d'être patriote quoi. D'accord. Même on peut être même opposant en étant patriote. Ouais. Mais <laughs> bien sûr. Tu sais Ndiassé, man euh, j'aime